di doore sama kàddu ci li sama goro Lamine Thiam wax léegi mooy di félicité ak di am kontante ci taxawaay bi nga xam ne suñu bàyyi suñu sëriñ Cheikh Mahi ñas am na ko ba yàlla defal ko ci ndam goo xam ne defe naa teewoon nañu bëree bëri bari bëri ci ay kuréel ak ay boroom daraja loolu nag bettuñu ndax bu ñu fàtte ni Baye Niass dafa waxoon l'Afrique aux Africains ñuy profité ci occasion bi di wax ni il faut ñu gëm suñu bopp ñun africain daa di dekkelaat suñuy ressort interne ndax su dee ñun ak ñun rek ci suñuy société am nañu ay pexe ak ay système yuy régler suñuy problème te bis bu ne ñu dund ko waaye keroog bi ñu demee ba ñu complexé ñu nag nga xam ne lu ñuy def rek jàpp nañ ni su tubaab bi jógewul fële ñëw regle ko du am problème te li ci ëpp tubaab bi mooy taal daay wi mooy jaay ngàndaay ndax Afrique kenn fabriqué wu fi ngàndaay moo ciy profité pour exploiter nag placer ay nitam exploiter réew yi kon ressort yooyu tey Cheikh yi def ci lu rëy a rëy Cheikh Amadou Bamba am lu mu ci amoon ci taxawaay ci sàmm ak defendre del bu ñuul ba wax ni xam-xam ak mën-mën yàlla du ko calqué ci der bu weex wala der bu ñuul cheikh sëñ alaaji Malick si am lum ci taxaw taxawaay boo xam ne tey moo indi relation yu am solo yu ñu am ak réew yu mel ni Maroc wala Algérie kon suñuy njiitu diine dañ ñoo dañ ñoo devancer trop ci seen gis-gis ci diplomatie waaye it ci ouverture kon def na lu rëy te xaarul Sarkozy sant ko ko wala Macron wala keneen koo xam ne ay intérêt bokkul ak suñu intérêt